ce débat là am na ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi percé les Lamine Camara et autres débat boobu naka nga koy apprécier est que débat boo xamante ne am na sa raison c'est un faux débat la oui euh, le faux débat moo di euh, Lamine Camara dafa ñëw dafa war jàng si gannaaw Idrissa et il le fait super bien et je l'encourage c'est un jeune très très très très très intelligent et tey jii ku ñëw rek xam la laaj mm. tu te fondre si groupe bi ñun on ne veut pas quelqu'un qui vient qui soit le génie on a déjà notre génie qui s'appelle Sadio Mané en attaque on a notre génie au milieu génie ça veut pas dire que quelqu'un qui fait des des des trucs de de fou sur le terrain euh, génie wu Gana moo di régulariser parler aux jeunes wax leen euh, lu tax tey jii nan la def ba am sans sélection xam nga tey jii ñëpp a ngi yaakaar ni football la déedéet sans sélection sérieux sans sélection Euh, bëgg sa dëkk la sans sélection leneen ak leneen la loolu lépp si jeune si jeune la bokk ñu dem si défense bi nga am un gars comme Koulibaly sa sagesse quelqu'un ku nga xam ni il respire euh, la tranquillité en défense t'as vu les deux matchs qu'il t'a fait en équipe nationale tous ces dernièrement euh, avec euh, Brésil Togo Cameroun je me demande est-ce qu'il a toujours il va avoir 30 ans ñu dem ci camp yi aujourd'hui Seny Dieng qui donne l'exemple bi ñu demee yaa ngi fàttaliku euh, Coupe d'Afrique Cameroun premier ay ñoom euh, Mendy dañu amoon Covid période Covid mu ñëwee lan lan wax dañ ni kii moo war a jouer mhm. il est venu mu respecté xam ni le numéro un kii la il c'est que il se respecte entre eux xam nga euh, man yàgg naa équipe nationale avant sax amoon na ay petit tiraay maa ngi defe nii mais fi mu toll nii yooyu yëpp la ñu raxas comme c'est pour ça que je dis que gagner c'est une organisation et je crois que ce ce la Euh, avec mélange jeunes yi ak boy yi et aujourd'hui man mi di leen gis tous les jours à l'entraînement mm-hmm. di nekk ak ñoom à l'hôtel di toog ak ñoom avant et après le match je crois que ils ont jamais été ils ont jamais été aussi aujourd'hui euh, bëgg teewaat ñoom seen seen seen Coupe d'Afrique seen loxo indiwaat ko jébalaat ko waat Sénégal